mooy li taxaluñu wa taalim kon loolu itam lu fi commerce bi sotti ko sotti ko sotti ko ndax loolu itam sëñ boo waxoon na ko nañ xam ne li ñu fi indiwoon war nañ koy bàyyi xel ndax loolu mooy lépp solo kon sëriñ bi daal mi ngi ciy soññ ci ñu gën a sàmm woor dëkk bi ci nga xam ne tudd naa ko ay tudd ba ca desit mooy ñi nga xam ne ñooy seeda ndax nit ñi moom faw da ngay fàttali rek ndax boo gisee alxuraan di wax fa zakir fa inna zikra tanfa'u mu'minin ndax topp nit ñi ba ci seen biir kër rek loolu moom lislaam do ko tere walam yajus baxsun anil dasik tatam fii thawbihi aw fi dukanihi naam aw fi yadayhi aw bi daarihi maha bal kursa kaana xaraman muniha kon la ca Cheikh Abdoul Ahad Mbacké waxoon ca tere mi rek sëriñ bi foofu la ca ne moom daa war a digle salaam salaam salaam siyaar naa leen jox leen seen wàccuwaay di leen ñaanal jàmm yee ñëpp di naan am leen jàmm ci darajewu Seydina Muhammad ko defee nu di def comme nu koy defee saa su nekk rek ñëw toog euh, def ay waxtaan yu gaaw si bismillahi rahmaani rahim pare ko ci alhamdulillahi rabbil alamin di leen Siar di leen salaamal yéen di dinaa wow terei terei tere yi ak ay ke yeeg basi affaire Basiiru tina wahati waxati naa koy mustaasam kanamam bu tàppandar boppam bu teegal ndeyam waaw génn tina de di wax expliqué na waaw léegi nag nee na ñoom dañuy tere salle de sport yeeg xam wow deglu kai man yo ma fi ande, pas que nyom lu ñuy wax man damay bëgg ñu comprendre ak xam ndax ñom ñor na leen ndax wax gi ñom xam nga am na fu mu leen toll moo tax léegi comme que saa waay daane moom ay mbirum déglukaay musique ak ay affaire man may laajte ñoom seen sikkar yi ak musique lan mooy différence bi voilà sikkar ak musique luy différence bi voilà parce que tëgg sabar musique bi tëgg sabar la si sikkar yi tëgg sabar la voilà musique bi lead vocal la si sikkar yi tamit daa am lead vocal hein musique bi ay awukat la sikkar yi tamit daa am ay awukat léegi nag ñoom seen seen loolu nu woowee ñoom seen sikkar ñoom seen zikaru bopp ñoom parce que loolu ñoom ñoo ko moom seen zikar bopp yàlla santu leen zikar boobu yàlla waxu leen si zikar boobu yàlla santu leen tëgg ki ay nangam léegi tëgg bi si zikar bi ah zikar beeg tëgg bi awu beeg awont bi paasante beeg ñaarante bi loolu ak musique lan mooy différence bi voilà ñun loolu la ñuy laajte léegi loolu ak musique lan mooy différence bi ñoom ñoo ngi tëgg ñoo ngi fecc ñoo ngi tëñëx ah ñoo ngi aw ñoo ngi teg micro awukat bi di aw loolu la musique bi mook musique bi pile ak face kiif kiif la amul benn différence amul benn différence donc ñoom suñu jugee ba nu naa ñoo ngi tere musique wala di am leneen lu tere war na noo jug xoolaat seen seen yooyu noonu nu nekkee seen pratique yooyu noonu nu nekkee ak seen yëfu dof yooyu noonu nu nekkee wante daal comme nu ma ko waxee nu continuer wax bi dégluwaat saa waay wax gu bëri tàggat yaram beeg lay wax ay affaire de tàggat yaram loolu kenn mënu koo tere kenn tàggat yaram kenn mënu koo tere kenn léegi dëkk bu nuy nag tere tàggat yaram mooy dëkk bu ñu bëgg nit ñi nekk ay dof parce que tàggat yaram dafa bokk si dundal sa yaram dundal sa esprit dundal sa xel yaa ngi comprendre ñuy tàggat seen yaram seeni xel day gën a di ubbeeku day gën a di kii dañuy génnee ay toxines dañuy génnee ay affaire dañuy génnee stress gu bëri gu nekk seen yaram yaa ngi comprendre tàggat yaram dafa baax si doomu aadam mais léegi nag yow soo jëlee ab dëkk nga tere leen tàggat yaram moom mooy ni ko yow tere nga leen nu use seen mind yaa ngi leen di tere ñuy dindi bu nekk ci ñoom pour di mën a di use seen donc nak mo waral tey jii nii pour nga gis ay dof yu bari Touba ak dof yu bari ci mouride du ñak du changer te du jeex parce que lu du nu génnee extrait yu eh, eh, extra yu am sen bir stress beeg toxine yeeg affaire yi duñ koy génnee parce que du len du len di téré ñom lan lan lu ñuy wowe manam tàggat yaram. wala a tere looloo fi bàyyi waaye nag. Cheikh Cheikh Abdoul Ahad Mbacké ba ba mu ko tere am ñu ñëw na ko li nga tere de am ñu ko waaye dara leen lii ma tere de yàllaa ko njëkk tere rasulullahi tere ko Sëriñ Tuubaa diglewaat ko ma ma bu ma ko teree nag yàlla digle ko nit ñi bàyyiwuñ ko bi digle ko nit ñi bàyyi ko ma tere ko man Abdoul Ahad ñu ñuy làqatu du ma ko def nag loolu doy na ko ci kon sëriñ bi moo fa wax la ma a yem waaye taalibe yi nag kenn ku ñëw kon am nga ci responsabilité kon sëriñ bi ne mi ngi sant ñëpp di xamle it ni ma ko bu ma ko teree nag yàlla digle ko nit ñi bàyyiwuñ ko yonente bi digle ko nit ñi bàyyi ko ma tere ko man Abdou Lahad ñu ñuy làqatu du ma ko def nag loolu doy ko ci sax kon sëriñ bi moom foofu la ma yem waaye kenn ku ñëw kon am nga ci responsabilité kon sëriñ bi ne mi ngi sant ñëpp di xamle it ni ma ko waxee rek mi ngi masawu nii ci bakkan yu bari yi nga xam ne wàññi ko na waaye loolu lépp ci coobare suñu borom la. Ah. ndax wala nag doy na ko. non nan taxaw foofu nan taxaw foofu. sëriñ bi nee na moo ngi jéggalu si bakkan yu bëri yu root yeeg yu demee wante loolu kàttanu suñu borom ah on doit revenir wax googu borom sëriñ Touba moomatu leen. sëriñ Touba mooy seen borom am Serigne Touba mooy seen boroom hein moo leen moom moo leen di ram léegi dogalu ban boroom ngeen di wax ba kenn yooyu noonu di dem léegi ban boroom ngeen di wax dogalu kan ban boroom wax gi foog muy clair léegi do ban boroom ngeen di wax kun faya kun wala Serigne Touba parce que wax gi foog ngeen di teg toujours point bi nu daal di mën a comprendre yéen su lu ngeen di wax ak fu ngeen di waxee parce que seen i wax dafa fa a teer nekk ay waxu xam nga guux maay nu nit ñi konkon si kaw nit ñi. léegi nag ah ba sëriñ bi day jéggalu lu muy jéggalu xanaa moom nekkatul sëtu doomu yàlla wala sëtum yàlla bakkan yi di dem wa dëggalu suñu borom ban borom Serigne bi am moom temps bu muy am pour jéggalu. wala naa jël temps boobu ràmbu leen boobu noonu la wala jël ah du di yóbbu fa yàlla ku leen waloon yóbbu fa yàlla eh ku leen waloon a tey jii ni àggale fa yàlla ba kenn yi di rot mu wala waajal eh, waajal train bi teg leen fa yóbbu leen fa yàlla muy jéggalu si ba yi di rot di ko tegaat encore si ndogalu yàlla si yóbboo na ngeen gaaw jaamu yàlla fu ngeen yoree seen bakkan yee gën parce que bakkan yi danoo dem sëriñ bi jéggalu y a des bakkan yi dañoo commencé dem sëñ bi di jéggalu lu mi jéggalu lan la lu mi jéggalu la wala expliquer nit ñi man je me pose des questions souvent quoi man damay déglu seen wax yi damay tok dama daa mais ça c'est de la merde parce que suma ma koy déglu sama xol bi lay laal c'est de la merde ها دغلو لين واخ بي التالي بي كان كو نيي كون ام غي ريسبونسابيلتي كون سيرين بي ني ميغي سانت نييب دي خاملي نيما كو واخ ري ميغي مسوني تي نعم، باك نعم. ني بري ييغا خان واني كو واي لو ليب تي تيوبو لي سيني بروبلا ندخ نعم، ولا نمدو نكم بشيء من الخوف والجوع هو نقص من الاوال والانفس لو تيبولي li nga xamne mo fi xew di mbënd mi itam nga xam ne ñu bari génn dañ seen kër sëriñ bi diis na ci moom ndax soñoom képp gàddaayee sa kër maam ngir bëgg ak mucc ak foo jaamu yàlla bu soñoom bu dikkee danga fi fekk lu gën la nga fa bàyyi te yéeg na ne coono ci nit léegi loolu noonu lan la si dégg-déggin ak lan si bëgg wax mooy yàlla mooy dogal léegi nag moom ah, ville sainte Touba maa wax gu ñu doon wax yëpp iri ko di ko dugal seen noppi pour mu saf seen noppi yi suñuy soxla addiya wala suñuy soxla récupérer leen tey coono bi ñëw muy masaw ak i naqar la ay affaire ñu nit ñi ñëw ak ay temps bu muy jël di masaw mu génne comme que amatul kun bi réer na ko kun bi réer na ko kun faye kun bu mu waloon use aar leen yéen mais mu ñew wax légui mom solution si yu mu jublu tay ji ni pour dimbali wa Touba pour mu jóof parce que gaay yi ngi dajale ay xaalis yu bakane di ko jox pendant que wa Touba nek fa ami problème mbeund gi ñew gaay yi genn ban solution day xaar légui nguur bi ñewat encore nu dajale def fa action pour mu daane xam nga wax wala waré fa lan la na expliquer nit ñi tout dernièrement la gaay defaat ñoom sen bopp ami problème nit ñi ngi genn mbënd bi na nu économiser trois millions encore joxaat ko léegi moom si trois cent dix million yooyu lan la si fas léegi fii si kaw àdduna balaa noo àgg alaaxira fii si kaw àdduna fii si kaw àdduna tey jii nii lan fii fas yéene lijjanti ak na lañ ko nar a lijjanti su fekkee ni que nu ko waxee nattu su suñu dalee chaque fois sëriñ bi da koy naqarlu rek wala di si jéggalu wala di si xam nga ay affaire am quoi ah ñu continuer déglu wax gi. ndax am na ci génn nañ seen kër te kii nit ki génn këram ay bagages sax yëpp yàqu loolu xam nga ne fa doyalu metti ak àgg na fa ndax ku ci ne ca sa sa jur néeg muy senn képp guddi nga doon nelaw dal na yow mën mii di wax ak yéen comme boo xalaatee ki nga xam ne. dugg na ci biiru saaram dugg ci biir dugg ci ëttam yàq ak waayam ak dundam jeex loolu metti na ci man damay laajte taa boobu noonu yëpp sëriñ bi fu mu toll ak fu mu nekk yàlla bi ah sëriñ Tuubaa yàlla la yàllay jaami ah la la la noonu nag loolu lépp di xew surtout ma si biir dëkkam eh, loolu noonu di xew mais ana yàlla gi seen yàlla gi bizarre. yàlla gi lay bizarre parce que yéen su ngeen waxe ak lu ngeen wax lepp ak lu ngeen koy expliquer yep fu ngeen tek wax gi yep tay mbeund gi yexi hein ah coow yooyu di dugg ci biir dëkkam affaire yoy non mom anam anam quoi anam mort voilà sëtam yi domam yi ak sët yi nekk ay yalla yu ndaw tamit nek ci biir dëkk qu'est-ce qu'il fout

dellu wat si sunu borom ñaan ah dedet kay ah ha doy na war sëriñ bi neena na ñepp tu delu wat si sunu borom ñaan ah doy na waar waaw parce que kuy tout veut dire que si lu nga nekkoon mooy loola am de soo demee ba ngay tuub ça veut dire que d'accord nga d'abord ni que yaa ngi woon xam nga rek yaa ma gën a xam voilà léegi nag comme que tuub am na si ça veut di ni ka problème amoon na si no voilà léegi nag tuub si kan si sunu borom encore nañ jéem a leerlu kan mooy sunu borom ñoom murit yi nen nu leeral sunu demee ba toll si point bi ni sunu naan sunu borom kan la parce que après da ngay ñëwaat wax nu ne la Serigne Touba mooy jaamu ya mooy mooy yàllay jaam yi yaa ngi comprendre Serigne Touba mooy yàlla su affaire yi neexee xam nga cotisation bi neex trois cent milliards yi génn xam nga soble bi génn màggal bi ñëw gars yi wala xam nga kii yaay faali wala jaxasoog bàyyi faali nu wala sëy seen biir boobu xam nga doo comprendre doo dégg soo leen ne yàlla gars yi duñ déglu waxu yàlla duñu bëgg dégg commandement yeeg affaire yi Serigne Touba mooy yàlla Serigne Touba yàlla la boobu la di wax mais léegi problème yi su yegsee musiba am wala nu nekk si ay affaire ñii di daw seen responsabilité ki nu andiwaat fi bekk yàlla kay ay waxi tuub ay waxi tuuba ki ak i waxi ñaan yàlla ak i jéggalu suñu borom léegi kan la loolu foog muy leer si taalibe dee leen leeral taalibe yi moo gën nga leen di yóbbu si erreur nga leen di yóbbu si erreur parce que comme ni ma ko waxee tuub fu mu am mooy jéggalu quoi tuub fu mu am mooy baakaar am na tooñ amoon na fa quoi tout fu am togn ah je ne comprends pas dañ wat wax parce que roy wax de parce que roy wax tay mom comme ko ko par force au wax quand parle on écoute et on analyse fermez vos gueules asseyez-vous euh, adorablement si vous voulez aller chercher vos tasses de café ouvrez vos vos cœurs

on remixe ça. man mii di wax ak yéen kon boo xalaatee ki nga xam ne dugg na ci biiru saalam dugg ci biir dugg ci ëttam yàq a waayam ak dundam jekk loolu métti na ci moom kon sëriñ bi daal di mi ngi masawu ñëpp waaye nag dañ xam ne yàlla suñu borom moom lu mu tegu jàmm ba dégg ci moom te sëriñ bi wax na ne ñëpp tuub dellu suñu borom ñaan suñu borom sotti. ndoxum ndox nag yàlla moom noonu lay mayee uru rabbakum summa tuubu ilayhi yursili samaa alaykum midraaran wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum kon ñaan ñu kii delloo ko boroom ñaan mu andi ndoxu jàmm ndox bi ba muy yegg si asamaan si ba muy xiin asamaan si ba muy xiin ndox ga di ñëw vidéo yaa ngi fi di xaaral ma xool on va vous le rappeler parce que vous avez tendance à oublier les choses parce qu'il y a des problèmes il y a des problèmes des problèmes là on va régler ça il y a de sérieux problèmes attendez on va voir je suis sûr que les vidéos là ils sont là quoi on va regarder ça on va voir ah. on va vous rappeler ah.

réécoutez tout et vous le repassez pour vous rafraîchir la tête quoi parce que souvent comme nous dit hein, euh, avons rek amnésique voilà Vous amnésique quoi vous comprenez euh, pendant avant Nyancho Media Vision, la scène qui vous ressemble et qui vous correspond.